yéen a nekkal fii réew mi de ñun de dañu am suñuy mool yu dem fale bisaaw pour liggéey si buñ demee ba léegi buñ demee ba léegi si ay nakar lak lay nañ demee foofu nañ nekkee foofu te ay benn waaji moo leen yóbbu foofu jël leen en charge contrat léegi nag ñu toog foofu liggéey nañu lekk na seen xaalis ñu ngi leen mu ngi leen di torok torogal foofu duñu lekk duñu naan ba ba temps yi am na ku ci gaañu foofu te nakar ak sonn ak ñàkk ñàkk nu ñuy dund loolu moo leen téye foofu mënutuñu génne waa ji du leen fay seen xaalis léegi nag yéen waa Sénégal Sénégal yëpp ñaan nañu gouvernement bi ñu yegg ko ñu jàppale ñu ngir yàlla ak yonent Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa parce que gars yi nekk foofu dañu sonn wallahi sonn nañu sonn nañ de. man la papa Dieng ànd fekk sama papa ñu koy wax Abdourahmane indi fi sunu matériel jóge Ndar waaw ñun doon proposé woon benn contrant ñu ne ko waaye jooju bu fekkee ni déglu nga audio bi. ñu koy wax Mamadou Tall Dieng bi ñu gën ko xam si Dieng bi Guinée Bissau yéen la am na tamit ay bain ci senegal googu mais waaye si voyu la daf nu nëbboon boppam bi mu nu indee ba fii liggéeyloo nanu ba sunu liggéey jeex di dawloo sunu xaalis jàppalu tamit sunuy matériel laaj nañu ko sunu xaalis ba tey mënuñu ko jox ñun ko léegi jëlal xaalis bi te nga jox nu sunuy matériel ñun tamit ñu mën a dellu fa nu jóge woon loolu yëpp tey tënoon sunu yenn matériel ñoo ngi nii ñu jàkkaarloo. bureau marin yaa ngi nii sunu boor mënuñu ci jot. liggéey kese moo taxoon a jóg ñun amuñu caaxaan ñii ndar lañu dëkk ñii mbuur lañu dëkk. mi ngi tudd Mamadou Taa Diaby surnom ñu koy wax Diaby am na ay bien Sénégal googu am na ay bien Gambie moom nag wax dëgg neex yàlla neexut a xeexal fii si biir dëkk bi ndax moom borom doole la fi booy xool tey Guinée Bissau yëpp la jënd. mi ngi njëkk yóbbu fu ñuy wax bu yomb am nañu fa deux mois mu war nu fay suñuy quinzième muy ñaari quinzième totalu jën bi yëpp nekk onze tonnes cinq cent bi quinzième bi matee du benn mool boo xam te ni fayeeku nga sa xaalis mu tournu lëndëg ni maanaam ñi mu seqoon ak liggéey bi dañ ko trahir ñii daw noonu jaar gauche ñii daw noonu jaar droite mais loolu du garaaw ndax moom moo leen di topp léegi dafa bëgg beneen contrat boo xamante ni dafa bëgg ñu liggéey entre ñun ak moom léegi contrat boobu bi mu si defee lim si war a def yëpp mu yóbbu ko sunu ambassade moom it mu def si liggéeyam loolu moo nu mayaat fit pour ñu liggéey ak moom ndax dan su njort ni ëllëg lu si mënti am mën nañ ko fa dem jooytoo ko fa moom it mu taxawu sunu mbir ndax xam na ni contrat bi loxoom mi ngi ci ndeke moom boobu am na lu mu lal waaye ñun boobu loolu ump nañu mu indi nu fii ci Kaseni frontière ak Guinée Conakry jamaare nañu sunu liggéey première quinzième kenn ku si ne avant ngay jot sa xaalis wax nga ba sonn ñuy soog a jot sunu xaalis te du ñëpp a jot loolu bi mu jàllee ñu sumbaat deuxième quinzième bi ñu liggéey loolu ba mu jeex quinzième bi matati encore Il totalé a jën bi mu nekk 12 tonnes moom 12 tonnes liggéey nañ ko fii 15 e sunu tonnes nous bi pour mu faynu ñu démarré toujours liy tardé ci moom lay jóge munuy dawloo tey ëllëg su koy ngoon ba délégation dem ambassade bi pour mu lijjantalu sunu problème ak mais gis nañ ni ba nu demee sax ambassade bi ci boppam mu mujj laa wu dem fekk ji waa ji këram kenn xamul loolu lan lay nuru dafa lu trop. contrat bi juróom benn at moo ci nekk six ans six mois lañ koy mën a def ñibbi bu nu noppalu jee ba nawet bi jàll ñu dellu ci waat noonu lañ koy jàppoo kon ba juróom benn at yi jeex ñu d'accord ci loolu lépp ñu bind ko ku ci bëgg am preuve bu la leer ñun ñoo ngeeg suñu euh, ay rôle ñoo ngeeg suñu ay suñu ay licence ñoo ngeeg moom te tey moyens yi fii yi si dëkk bi yëpp waa ji da leen a jënd fii pour maanaam sa pexe bopp boo ko doon def pour ñibbi sax doo ñibbi mënuloo ñibbi ñun fi mu ne nii kenn xamul si lu mu nekk ñun mënuñu génn fii ñu ne. fi may wax ak yéen nii léegi la ñuy soog añ bu ñam duggaatee suñu gémmiñ amaana suba la te dañu koy sarax billahi wallahi taalaahi dañu koy sarax suñu xëyee suba ñoo ngi si toolu mango yi ñoo ngi si toolu darkase yi di wut lu ñu lekk def suñu biir si suba si. nit dee na fi gendar la dëkk sunu mbokk gendar la mi ngi tudd ëllaaji faay feebar na fi juróom ñaari fan mënunu si moom dara ndax ko amul loolu lekk mënoo mënoo dimbali kenn ni lan toog di ko xool prostamol sax mënu ko jëndal ba ne yàlla ci njëw ak mbiram noonu la nu mujjee def ay effort ñi nekk sunu mag ñi nekk bisaaw ñoom it def ay effort ba indi fi oto mu jël ko yóbbu ko suul nan ko barkaati démb ngir yàlla ak yenent bi sonn nañu trop te fi ñuy wax ak yow ay mag ñoo fi nekk ak ay xale te ba léegi lu ne mën na fi am lu ne mën na fi am lu waay mën def ba suñuy autorité jot ko ngir yàlla ak yenent bi ñu si dimbali parce que instant bi sonn nañu